ma ngi leen di jaajëfal mbokku internet yi bu baax baax di rafetlu seen ànd ak seen déglu ñu dewaat rek si seen décortique bu soxal série bi di Virginie bi nga xamante ne épisode 17 bi daw euh, ci samedi bi euh, comme niñ ko baaxoo di def rek daal di ci indi ay analyse yoo xamante ne rek moom la ñu daal di amal ci différentes euh, séquences yi nga xam ne rek moo ci daw ñu gis ne Dieyna ak Kiné nag ñoo raw ak Comer ñu nekk ci école bi daanaka ñoom ñaar ñoom nag lijjante mbiru waa jamono ji dañoo jaaxle ndax xamuñu nan la ñuy def ak kan la ñuy woo ngir rek mu jëlee leen seeni bulletin ndaxte euh, def nañ ko ñaar ak ñett yoo xamante ni amuñu moyen euh, tey jii nag dañoo jaaxle waaye nag duñ ci yem ndax lu ñu def tey ëpp na loxo ndax ki nga xam ne rek mooy ñokk su nekk ak ñoom euh, ci classe bi découvrir nañ ci ñoom loo xamante ne tey jii du ñoom ñoo ko waroon a gis parce que kooku dafa doon dund dans le secret mësul wax kenn que ne dafa amoon jabar waaye tey jii ginnaaw bi nga xamante ne seen sob ak seen bëri wax ak bëgg lijjante tax na tey jii ñu dem kër koo xamante ne tey jii da doon dundu euh, viom en secret euh, waxu ko kenn ñu gis ko nag euh, ñoog su dang jaaxle lool ndax xam ne lii ñu yëg ñoom ñaar mu jëy na ak ki ne nag loolu daanaka école bi yëpp dinañ koy yëg mu mel ne toujours rek lu ñu wax nag ku bëgg rek say parents di daagu ci école ba heure bu leen neex yow boo dee élève na ngay góorgóorlu boo dul bokk ci première classe bi waaye na nga am moyen am benn comportement boo xam ne tey jii koo tàllal sa loxo ngir mu demal la école ba dina la mën a retirer sa bulletin wala quelque chose comme ça jamono ji nag ki nga xam ne rek mooy ñog su jaaxle na lool ndax ñaan ñi ku ñu xamal rek mooy yaa ngi ci biti ah, dinañ ko si napp daal di ko wax ci classe ba ba ñëpp yu xam ko ah, loo xamante ne rek kenn mënu ko woon ah, mës a xam foofu moo tax rek ñu naan sopp dina dugal nit ci loo xamante ne doo xam waaye tamit nag nit boo ñëwee vilipende de viom rek moo yàqal nga ko àdduna tey jii li nga xam ne moom dund na ko ay at kenn xamu ko ñii bu ñu ko xamalee waa classe ba rek dinañ am ay jafe-jafe ñu gis tamit nag découragement bi nga xamante ne moom am na na ko ginnaaw bi nga xam ne rek def nañ composition amul benn moon ci ki nga xam ne rek am na jabar ba ne sax day mujjee arrêté waaye nag xaritam bi xamal na ko ne tey ji boo bàyyee jàng rek man damay bàyyi jàng ma tey ci bi kon nag ñoom euh, mu mel ne rek xaritam bi dafa dem école pour xaritam mais demul ngir jàng nañu bàyyi xel rek di gën a góorgóorlu ci suñuy wajur lu ñu def si ñun ngir rek ñu mun a am euh, benn niveau bu baax am note yu baax nekk parmi les meilleurs dans toutes les écoles vraiment am benn avenir boo xamante ne doo ci am ay jafe jafe-jafe un avenir bien engagé et bien organisé euh, doo si topp ko mu nek série bo xamante rek dañuy won lépp li nga xam rek moy xew ci école yi euh, donte sax ñu génne yépp li nga xam mo fay am way nak amna lu gën pure lo loo mo ci am ba tax na nag nañ ci bàyyi xal buñ koy sétane buñu top rek na ay xalé lañ waaye nag nañuy jangaté ci ñom ci li nga xamante euh, wujuri ñom ñi nga xam fi lañuy la ci kër gi ndax gis nañ ne parents yi léegi dañuy toog ba sa dom jang école ba tëj lu la fa yóbbu mooy récupérer ko ay bulletins doo fa sa dem kon nag lii ñuy ñu joué nii dafay won askan yu ak parents yi nga xam ne ñoom taayal nañ dem école ngir ñu mën a xam seeni doom luñ fa nekkee mu nekk loo xamante ne nag mi que série bi daanaka sax indiwuñ wuñ ci lu bëri buñ ci jógee nag dañuy ñëw euh, ci kër ñoom euh, Virginie yaayam magam ak ki nga xam ne rek mooy jëkkëru magam ñu gis ne vraiment euh, mu ngi toppatoo sëram yaayam tamit kontaan na toog seet si ko waaye li jaaxal ñëpp mooy kat yi ba mu yegsee moom ak papaam tey jii Virginie dafa surprise ndax xalaateewu ko woon ne kii di kat yi dina ñëw fekk si ko waaye nag dafa fekk ne waajur boo gis rek bul nangu sa doom nag yëg ci sa bopp bu fekkente ne kat yi la mu doon def tey jii euh, papa moo ko ko waxoon wala moo ko ko tàmmaloon wala moom moo ko ko santoon kon tey jii papa ji du am sañ-sañ dàggu si waat ba ci Virginie ñëw euh, ñëw pour rek baalu ak kon nag bari na ci xale yoo xamante ne dañuy def yow acte yoo xam ne wala benn genre comportement boo xam ne wala seen waajur xamuñu ko ndax tey jii buñ ko yëgee rek dinañ ko ci jëlee mu nekk nag un exemple boo xamante ne parents yëpp war nañ jàng ki nga xam ne mooy papaykat yi ndax sa doom boo ko yóbbee école ngir jàng bu fa demee loo xamante ne bokkul dans le cadre de l' école war nga dem taxaw foofu euh, justifier ko regle ko mu dal di delluwaat ci place am mu mel ni nag papa yoro si papaykat yi dafa responsable te bëgg na tey doomam nekk nit ku baax koo xamante ne jàng moo ko yóbbu ci école bi pa li nga xam ne rek mooy star bi ñu koy woowee euh, Virginie nag tey jii surpris dafa jaaxle dafa tiit parce que xaaree ko won waye nak ak lepp lu ci mëna am rek nan deglu ki nga xam ne rek mooy papaykat yi ndax tay ji bu ko dégloo ak tamit Virginie nek nit ko xam dafa dal parce que bu fekkone nit kuy defante bañ ko defee lolu rek ci lay gaawantu dem feyu ji tamit dem déclarer ko vu que papa mu ngi nek ko xam rek commandant la je sais pas lolu it mëno na def rek ba tax na lépp def aduna tay da ci bax ndax nit bu la wéké nga ko rek mbam nga comme niñ ko waxé bu fekkente ne bak kat yi waxee ne moom moo dem moom moo commandité vol beeg yëpp moom mer na ba dem wax ko papam kon su boobaa mbir mi du demee ni waaye tey jii am na ndam ci kaw ki nga xam ne rek mooy yi te li ko ko may rek mooy patience am teeyam ak tamit déglu ndax rek bu métti woon mu fayu rek kon lii du ko ci fekk kon nag toujours nag dañ naan tey ci ndox lañ ko xamee waaye ci nit la gën a jékkee nit nekk nit bu la defee dara rek bu bu ko fayu subitement na nga dem ci ñi nga xam ne ñoo la mag nga laaj leen ay conseil ndax lii ba mu waxee magam magam conseil na na waaye tamit moom it mu am xol bu rafet ne buggul yóbbu rek koo xam ne camarade de classe amee yenn yi parce que dañ ko koy jàppee ko soxor tey jii nag lépp lu kat yi defoon tey jii euh, dina dellu ci ginnaaw ndaxte tey jii mënatul am kàddu ci kaw ki nga xamante rek mooy Virginie ginnaaw bi nga xam ne papam gis na lépp ak xam na lépp li nga xam ne moom la doom doomam def ba tax na mu indi ko ci école ba ginnaaw yàlla ñëw di baalu si ak acte bi nga xamante ne moo koy def mu nekk série boo xamante ne ay xale ñoo koy joué waaye maîtriser na lu ñuy def ndaxte lu ñuy joué nii sax ci école lañ koy jàppe waaye nag ci administration la gën a bari ak entreprise yi ak ci dëkkuwaay yi bari na ci loo xam xamante ne ñu ngi koy joué sax ci école bi waaye nag ci kër yi la ëppee ak fu nit ñi di liggéey kon nag nañuy bàyyi xel bu ñuy seetaan si série yi rek parce que actrice bi wala acteur bi neex na ma mais na nañuy seet seen acte yi nga xamante ne moom la ñuy joué ci série xam ne loolee moom la ñuy dund fii ci société sénégalaise bi moom la ñuy dund ci kër yi moom la ñuy dund euh, ci mbedd mi moom la ñuy dund ak fépp foo mën a nekk rek ñoom ci loolu la ñuy basé wu ku koy seetaan nag bul seet décor bi bul seet ñoom mais na bi nga xamante ne moom la série bi di def ngir rek rek nit ñi bàyyi xel dellu siwaat seen xel ci acte yi nga xamante ne ñoo ñoo koy def te si bu buñ ko bàyyiwul dinañu jural ay jafe-jafe maa ngi leen di jaajëfal mbokk internet yi ci ànd beeg déglu bu baax baax di leen jégalu ci yenn kàddu yi waaye tamit duma tàyyi di leen wax ngeen abonné si suñu chaîne bi di 5 TV jërë ngeen jëf